waaw victoire la boo xamante ni koy def rek si liggéey bi nga xamante moom lañ def boobu léegi ndaxte tàmbali ak équipe bu Guédiawaye boo xamante ni léegi ñetti weer mi ngi tàmbali du woon yomb pour ñu am dara si moom mais yàlla def na ñu teel dugal bi ñu toolee dugal tamit gis na équipe bi nga xam sur le plan et l' intelligence de jeu ñu fexe ba nga xam duñu mën sonal et je pense que tax na sonalunu li ma koy xool si nasaraan rek mooy a ñoom ñooy ngeen xoolee dafa concentré wu ci ay xale yu ndaw yoo xam am nañ ambition pour mën a dem si biir ëllëg tamit si ak victoire doonu lépp baax na gis nañ ni tey équipe bi am na instant boo xamante ni xaw nañ flotté si ba nga xam adversaire bi nangu bal bi moom football bi kon am nañ victoire certes dañuy defaruwaat li nga xamante ni lacune yu bari yi nga xam wane nañ ko si match bi aussi ñu gën defar pour fële nga xamante ni foofu nañ jëm di Diourbel ñu mën fa am ndam comme ñun amee ndam tey